يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون
لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki jullit yi xam nañ ne weeru koor jege si na weer woo xam ne weeru yiw la weeru laab la ci lépp loo xam ne xeetu bàkkaar la waaye itam weeru ay tuyaaba la ak ay daraja yu yëkkatiku la gën ca loo xam ne nit ka dana ko teeroo weeru koor mooy muy dugg ca weer wa fekk jéggulu na mboolem ay bàkkaaram ba mu set wecc su weer wa dikkee du fa fekk ay bàkkaar su ko defee la fay des mooy rek bind ay tuyaaba ak yëkkati ay daraja loolu tawfiqi sunu borom tabaraka wa taala la yoo xam ne doomu aadama dafa doon ku munta mucc ci bàkkaar moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne kullu bni aadama xataa wa xayrul xataaina tawaabuun doomu aadama yépp nee na dañuy juum dañuy def ay bàkkaar ñi gën ci ñuy def ay bàkkaar nag mooy ñoo xam ne suñ juumee rek daal di tuub dellu ci seen borom tabaraka wa taala sun borom tabaraka wa taala ku jéggalu mu jéggal la yemul ci lool sax waaye ku jéggalu te sa njéggalu rafet nga tuub dellu ci moom di def lu baax ñaawteef ya nga defoon sax day mujj soppiku ay tuyaaba nag faf ndax borom bi tabaraka wa taala nee na illa man taaba wa amana wa amila amalan saalixan fa ulaika yubaddilu allahu sayiatihim xasanaat ñi nga xam ne dañoo tuub boole koog ngëm yàlla gu wér boole koog jëf ju baax sunu borom tabaraka wa taala nee na ñooñu jëf ju bon jim defoon da koy wëlbatiku mu doon lu baax mu defal leen ko ci seeni balance ëllëg loolu xéewal gu mag la moo tax mu daaneele ne wa kaana allahu gafuran rahima sunu borom tabaraka wa taala mooy jéggale kat bi mooy borom yërmaande ji loolu moo tax muy soññee di wax ne na ngeen di tuub fu ngeen toll yéen ñi nga xam ne da ngeen gëm yàlla wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun nee na yéen ñi gëm yàlla fu ngeen toll dee leen tuub di dellu ci yàlla su ngeen ko defee da ngeen texe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan soññee lool ci tuub di wax ne yaa ayuha nnaas yéen nit ñi tuubu ila allah tuub leen dellu ci seen borom mu ne man mii kat ci benn bés danaa ci jéggalu yàlla lu ma téeméeri yoon kon su fekkee ne kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne borom bi tabaraka wa taala jéggal na ko ca la weesu ci dundam ak la des ci dundam maa taqaddama min danbihi wa maa taaxar su fekkee ne moom miñ jéggal léppam mooy tuub ci benn bés di jéggalu yàlla lu mat téeméeri yoon kon keneen ku dul moom taxul ñuy wax ci yërmaande sunu borom tabaraka wa taala nag dafa tax ak xam gum xam doomu aadama ak seeni njuumte tax mu ubbil leen ci xeeti bunt yoo xam ne su ca nit ko jaare ñu faral koy bàkkaaram bunt yooyu bari na bari goo xam ne jéggi na dayo loolu moo tax ñu tànn la ëpp solo ci bunt yooyu ngir waxtaane ko ci waxtaan bi muy mu kaffiraatu zunub ñu fas ko yéene waxtaane ci taxawaay bii teeroo ko weer wi nga xam ne mooy weeru koor di ñaan sun borom tabaraka wa taala mu defal nun ñëpp tawfiqi jëfandikoo yooyu yi nga xam ne day far ay bàkkaar ba suñuy dugg ci weeru koor fekk duñu yor benn bàkkaar nu dund ko ak tuyaaba yu bari ak ay daraja yu yëkkatiku ak wér-gi yaram ba génn ko ci jàmm tomb ba ci jëkk ci luy fay far bàkkaar mooy liñ doon waxtaane léegi mooy tuub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man taaba qabla an tatlua alchamsu min maghribiha taaba allahu alayhi nee na ku tuub li feeg adduna tukkeegut bunt bi ubbi nañ ko buntub tuub ku bëgg a tuub ku nekk mën ngaa tuub waaye nag tuub goo xam ne da ngaa dem ba yëf ya sës nga door ne tuub naa nag léegi googa tuub moo dul am njariñ yëf ya sës mooy lan mooy lii mu junj fii mooy an tatlu ash-shamsu min maghribiha mooy ñu dem ba adduna di bëgg a tukki ba kéemaani sunu borom tabaraka wa taala yi tàmbali di feeñ yu yu mag ya nga xam ne bokk na ci jant bi nu miinoon ne day fet day fenke ca sow day fenke ca penku mu xëy benn bés fenke ci sow nee na nag ku jekki ba gis loola ba àggal nga door a tuub su boobaa nag tuub ga amatul njariñ loolu day yem ak ki nga xam ne dafa nekkoon ci ay caaxaan jekki ba mu wóor ko ne ci sukuraat la nekk mu door a tuub kooko moo ki jant bi fenke ca sow ñoo bokk ab atte kon daal nit ki na tuub ginnaaw mi ngi am wér gi yaram mi ngi ànd akum xelam te dara xewagul mu teel a tuub loolu moo koy jox tuyaaba ji jóge ci sunu borom tabaraka wa taala mu daal di koy nangul ak tuubam ay ñaaw téefam sax mu soppil ko ko mu nekk aw yiw ñaareel ba bokk na ca nit ki suy jàpp mu def ko njàpp mu mat sëkk bañ koo yàkkamti bu dee day raxas li muy raxas ba raxas ko ba mu sëkk wecc cër bi doon raxas ko raxas boo xam ne raxas bu mat lay doon moom cër bi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man tawadda fa ahsana al wudu nee na ku jàpp te rafetal njàpp ma xarajat xataayaahu min jasadi nee na mboolem ay ñaawteefam day génne ci yaram wi noonu nga gis tilim ja di génne ci yaram wi noonu la ñaawteef ya di génne xatta taxruja min taxti asfaari ne day dem ba bakkaar yi sax dañuy génne ci suufu weem yi di dañ xëy na moom yëgu ko waaye sunu borom tabaraka wa taala noonu la ko jàngalee bokk na ci yooya li ñu tuddee albaqiyaatu saalihaat yi nga xam ne boo jullee ba noppi moom ngay def li fanweer ak ñett fanweer ak ñett fanweer ak ñett muy muy subhanallah ak alhamdulillah ak la ilaha illallah wala allahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar benn bu ci ne fanweer yoon ak ñett yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo defee loolu loolu juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent la 99 la nee na ba koy mottali téeméer mooy laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lahu almulku lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir loolu moom lañ tudde albaqiyatu salihat yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na ku ko wax benn yoon loolu yi nga def ko benn yoon li war a doon fanweer ñett nga def ko ko li doon benn yoon nga def ko benn yoon nee na gufirat lahu xataayaahu ne yàlla jéggal na ko ay bakkaaram wa in kaanat misla zabadil bahr donte bakkaar yi bari na ba toll ni duusi géej bare duusi géej ni bare kenn xamul nu mu toll ndax moo gën a bari fetti suuf ndax ndox moo ëpp moo ëpp jéeri kon kenn xamul duusi géej nu mu toll kon bakkaaram yooyu daal li muy firi mooy lu mu bari bari sunu borom tabaraka wa taala jéggal na ko bokk na ci loola it faatu ci yoonu yàlla mën naa doon ku xeex ci toolub xare boo xam ne fii sabilillahi la mën naa doon ku génn ci ak jaamu yàlla faatu fekk ko ca loola moo xam daa nekk aji wala daa sàkku ji xam-xam wala to jaamu yàlla ko tax a jóg mu faatu kooku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dana ko jéggal lépp ba mu des bor ba mu des bor boo xam ne da ko yoree loon nit kooku moom yàlla du ko jéggale bor moom des koy fay borom bokk na ci loolu baril ay jéego jëm ci jàkka ay jéego nag buñ ko waxee mën naa doon jéego yooyu dox ak sa tànk mën naa doon jéego yoo xam ne da ngaa war ab warukaay bu la yóbbu loolu lépp génnul ci jéego yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xanaa du ngeen ñëw ma tegtal leen loo xam ne yàlla da ci far bàkkaar di ci yëkkati ay daraja ñu ne ko waxu kay yow yonent bi yàlla bi mu ne isbaaxul wudu jàpp leen jàpp mu jot alal makaari jàpp moo xam ne jamono yi nga koy def dafa fekk laal ndox doonut lu yomb sax ci nit ndax mën naa dajeeg jamono ju sedd lool jamono joo xam ne dafa sedd lool téewul ngay jóg ca waxtu wa di jàpp njàpp moo xam ne mu mat sëkk la am na ñoo xam ne bu sedd bi demee ba jéggi dayo nañuy raxasi cër ba mën naa ñàkk sol lool mën nañ caa sànni ndox ma rek daal di gaaw maasale ko jàll waaye déedéet isbaaxul wudu alal makaari day metti lool ci moom mu jëfandikoo ndox ma waaye mu jëfandikoo ko ci nam gën a mate kooku benn la bi ci des mu ne wa kasratu alxutaa ila almasajid ak jéego yu bari nag jëm ci jàkka ya wa intidaaru salaati baada salaa ak julli ba àggal toog nekk ci jaamu yàlla di ko xaare gene geneenu julli loolu defe naa weeru koor ci yi ko gën a mënee sa defe ci la bokk ndax lu bari ci nit ñi seen bëccëg lu ci ëpp ci nelaw lay doon su ko defee loolu wattandiku ko fexe ba nekk ci jaamu yàlla julli ba noppi toog ba geneenu julli fekkaat la fa kooku ci yi far bàkkaar yi ci la bokk bokk na ci yooyu it woor weer wi ci boppam ak naafila ko woor weeru koor ak naafil la ko ci yi far bàkkaar yi ci la bokk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man saama ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min danbi waxaatit ne man qaama ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min danbi nee na ki taxaw woor weeru koor koor gu mat sëkk ba mu jeex jégal nañ ko bakkaaram ki ko naafila it ba mu jeex jégal nañ ko bakkaaram beneen ba ca teguwaat mooy laylatul qadr doon genn guddi gu ñuy dàkku ci biir weeru koor wi guddi googu ku dajeeg moom moom itam nee na jaamu ko yàlla nee na yàlla jéggal na la say bàkkaar kon ñetti occasion ngoog ci biir ramadan muy woor weer wi ak def naafila yi ak dàkk laylatul qadr ci jaamu yàlla yooyu ñett yooyu boo ci def bu nekk say bàkkaar far na ba jeex li ma ta xam foofu moo di su genn jaamu yàlla ñëwoon far bàkkaar ya ba mu jeex mën nga ne kon geneen gi moom lu muy def boroom xam-xam yi nee nañ geneen gi day far la ñëwagut ci kanam wala lam waroon a faray bàkkaar mu yëkkatee ko say daraja ginnaaw fekku fa bàkkaar moo tax bul ne kon damay def lenn li rek bàyyi ya ca des ndax su ma wooree weeru koor kon mu far samay bàkkaar kon mu doy jaratul may naafila wala jaratul may dàkk laylatul qadar lu ñëw lu nekk am na lu muy def kon jaamu yàlla noonu la bindoon yërmaande sunu borom tabaraka wa taala moo yaatoo noonu bokk na ci it subhanallahi wa bihamdi baat yu gàtt yu yomba wax bis boo ko waxee téeméeri yoon jàppal na say bàkkaar jéggal nañ la ko bu toll woon ne duusi géej yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax moo ne man qaala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra ku ko wax ci benn bis téeméeri yoon xottat xataayaahu ne borom bi tabaraka wa taala dafay xeet raxas wàcce ay bàkkaaram wa in kaanat misla zabadil bahr donte dafa tolloog duusi géej bokk na ci far bàkkaar it mooy foo juume ba def lu ñaaw gaawal def lu baax wax nga wax ju ñaaw gaawal tudd yàlla jëf nga jëf ju ñaaw gaawal julli wala gaawal def loo xam ne lu baax la soo ko defee da koy far yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wa atbii sayiata alxasanata tamxuha soo defee lu ñaaw gaawal def lu rafet nee na da koy effacé mi ngi mel ne nga bind ba àggal jël gom bi daal di koy effacé mu set wecc kon noonu lay def bàkkaar bokk na ci it liñ doon junj léegi waaye bii dañ koo beral tombu boppam moo di ku def ñaaw téef nga julli ñaari rakka ngir ñaawteef boobu nga def borom bi tabaraka wa taala daf koy far yonente bi nee na maa min abdin amul benn jaam yuznibu zanban jaam boo xam ne def na benn bakkaar fa yuxsinu tuhur mu dem jàpp-njàpp mu sell summa yaqumu fa yusalli rakaatayn bu mu ko defee baagal mu jóg julli ñaari rakka summa yastaghfiru llaha illa ghafara lah nee na mu jéggalu yàlla lu dul yàlla daf koy jéggal bokk na ci ñaan gi ñu tuddee wala zikr bi ñu tuddee kafaaratul majlis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku toog ab jataay ay wax bari fe wala ay caaxaan yoo xam ne jëmul ci jaamu yàlla fa kasura lagatuhu mu wax fa wax yoo xam ne wax yu tekkiwul dara la waaye bi mu daataan jóge ci jataayam boobu mu ne subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk nee na su waxee loolu borom bi tabaraka wa taala jéggal na ko bépp njuumte boo xam ne defoon na ko wala mu waxoon ko ci jataay boobee mu toogoon moo tax ñu tudde ko kafaratul majlis bokk na ci lii far bàkkaar itam al umra moo tax ku ko sunu borom tabaraka wa taala may itam lu baax a baax la muy umra rawatina ku ko man ci weer wi nu jublu muy weeru ramadan ndax mooy wi gën a tedd mooy wi gën a màgg yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na al umratu ila al umra diggante umra ak beneen umra maanaam soo umra ba ba ngay umrawaat ba jiitu woon day far lépp lu fa dox ci ay bàkkaar nekke noonu aj itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku aj te defoo fa benn caaxaan wala ay mborent ci wax wala ci jëf nee na buy dellu si dafa melaat ne nam meloon ba muy judd maanaam papier balance lay doon boo xam ne kenn bind kuñ bindalagul bàkkaar kuy door a judd nee na noonu ngay mel bu keroogee lim ci jublu nag mooy page bi nga xam ne fa la ñuy bind ñaaw téef ya waaye page ba ñuy bind tuyaaba ya nag moom day fekk mu fees dell ak ay tuyaaba bokk na ci loolu julli farata yii nga xam ne jullik àjjuma ci biir la dugg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leen assalawaatul xams julli yi juróom wal jumaatu ila aljumaa ak àjjuma ba àjjuma kafaaratu lima lima baynahunna nee na dañuy far lépp lu dox seen diggante waaye nag na fekk waaja doon koo xam ne du xuus ci bàkkaar yu màgge rek di ko def pour ne daa xam ne danañ ko jéggal loolu moom da nga koy wattandiku da ngay wattandiku di daw loo man ba noppi nag di def lu baax waaye bul ne kat su ma defee lu baax ñu jéggal ma kon naa jóg rek xuus dem defi bàkkaar yu mag déedéet du noonu bokk na ci itam dégg ñu nodd ba noppi kii nodd su noddee ba daaneel nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu daal di wax ne raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami diinan yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku wax loolu gufira lahu danbu ku ko wax ñu jéggal la sa bakkaar kooku genn ci yi nga xam ne ku dégg ñu nodd ba àggal ci nga koy wax waaye am na yeneen yoo xam ne itam des na ko wax bokk na ci sàkk sarax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na as-sadaqatu tudfi'u al-khati'a joxe sarax nee na dafay fay ñaawteef bàkkaar kama yudfi'u al-ma'u an-nar ni ndox di faye sawara boo ko ci sottee sarax noonu lay faye ay bàkkaar kon sarax lu baax la sarax nag boo koy joxe waxuñu nga seet la yées ci la nga am joxe ko waaye da ngay xool lu baax loo xam ne ñépp bëgg nañ ko nga jël ko ba pare jox ko itam koo xam ne ku ko yeyoo la jox ko koo xam ne ku ko aajowoo la ci lu dul nag nga koy wëndeel ci bopp wala ngay tànn bis boo xam ne moom nga koy joxe naan tey la bis sàngam wala tey la nangam altene wala alxames wala déedéet amul digle yu mel noonu joxe rek yow daal am nga lu baax loo xam ne lii da ngaa fas yéene ñaan sa borom tabaraka wa taala jéggal la say bàkkaar nga jël ko jox ko ku ko aajowoo jamono yi nga ko koy joxit nag bul jàpp ne bàkkaar yi ci boppam nga koy jox léeg-léeg am ñuy sarxe ñoo xam ne wëndeel ga ñuy wëndeel ci seen bopp lañ bëgg mu dañ dañoo bëgg mu topp kay jël sarax ba waaye mbir ma du noonu nag suñu borom tabaraka wa taala du ko teg dara ca loola ndax ku yayoo sarax la yàlla digle ne booy génn sarax jox ko ko ñu jox ko ko mu doon àqam mu yóbbu ko waaye taxul ne nag dara da koy topp ci xeet yi nga xam ne moom la waa joojee doon jàmbat bokk na ci lenn ci koor yi ngàtt nga yi nga xam ne des koy def ci biir at mi lu mel ne bisub arafa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bisu arafa biñ ko ko laajee mu ne day effacé bàkkaarub at ma jiitu woon ak at ma ca tegu kon bisa ngoog bu mag a mag boo xam ne benn bis rek nga koy woor bisu ashura itam muy fukki fan ci weeru muharram fukkeelu fan ba biñ ko ko laajee moom itam daf ne dafay effacer bakkaari at ma ko jiitu woon bokk na ci kàddug laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ko wax ci benn bis téeméeri yoon mel nga ne koo xam ne danga goreel fukki jaam mel nga ne koo xam ne danga goreel fukki jaam kon tuyaaba ja noonu lay toll waaye ñu bindal ko itam téeméeri tuyaaba faral ko itam téeméeri bàkkaar kon laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir lu gàtt gàtt jullit bi war na ko jéem a wax téeméeri yoon ci bis moo xam day toog benn jotaay wax ko fa wala da koy séddale ci julli yi juróom saa bu jullee wax ko ñaar fukki yoon wala moo xam nu mu koy doxale waaye góorgóorlu ba di ci am téeméer bis bu set moom xawuta mën a ñàkk ci ab jullit laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulku lahu alhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir bokk na ci itam bu imaam di jàng ci julli ba ne amiin nga ne amiin yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na malaayika yi dañuy wax amiin de te koo xam ne yaa ngi ne amiin dajeeg amiin yi malaayika yi nee na jéggal nañ la say bàkkaar loolu moo tax dañoo sopp amiin jooju boo koy wax mu bañ a doon waxin wu gàtt bañ ne rek amiin waaye wax ko waxin wu gudd ndax mu dajeeg na ko malaayika di waxe moo waral nit ñi di wax amiin ci gannaaw imaam bokk na ci itam nag muñ muñ metti metti yi nga xam ne mooy tegu ci sa kaw muñ mooy yàlla yi ñuy gaaral ci sa kanam mu neex lool nga di ko wattandiku nañ ko waxewoon ci xutba ba weesu muñ itam jaamu yàlla yiñ la sant te amaana mu xaw a diis ci bakkanu doomu aadama muñ googu ngay muñ lépp tuyaaba la waaye nag da cee am muñ goo xam ne moom day far bàkkaar mooy lu metti liy tege ci sa kaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ab jullit day aw metit du ko dal wala feebar wala metitu xol wala njàqare wala lor da dal ci kawam wala tiitaange ba ci ak dëkk sax gu ko jàmm wala puso nee na lu dul loolee ko dal borom bi tabaraka wa taala da ko ciy faral ay bàkkaar moo tax nit ki yu metti yi dal ci kawam wërta jàpp ne lépp lor la léeg-léeg nit ki dana bari ay bàkkaar ba mu jéggi dayoo néew ak tuub ba mu jéggi dayoo yërmaane sunu borom tabaraka wa taala ci moom day ñëw teg feebar bu metti ci kawam ngir faral ko bàkkaaram yooyu parce que mënoon na koo tuub te tuubu ko mënoon na ko bañ a def dem def ko ginnaaw nag def na ko te tuubu ko nag sunu borom tabaraka wa taala bëgg ku ko dindil teg ko lu metti loo xam ne ca lay jaar ba dindil ko bàkkaaram yooyee mbokk jullit yi bàkkaar bu fekkee jullit bi am na mbañ bàkkaar mooy mbañam ndax loo xam ne bu ñëwee daf lay xañ tuyaaba yi nga xam ne moom nga war a am ëllëg sa ëllëg mën a baax sa balance yi nga xam ne mooy balance yi lu bon mu di ko yokk fu mu toll kon kooku mooy sa mbañ wërta bari ñaareel bi waroo toog loxoy neen te nekkoo di ko tuub bàkkaar yi nag dafa doon ay xaaj ndax am na ci yoo xam ne àqi sunu borom tabaraka wa taala la am ci yoo xam ne dafa doon àqi doomu aadama te borom bi tabaraka wa taala xaqam lim xaraamaloon nga def ko boo ko tuubee mën na la koo jéggal waaye doomu aadama mbiram demewul noona moo tax ku yore doomu aadama xaq da nga koy jéggalu mu jéggal la ko bu dee alalam joo jëloon da nga ko koy delloo su dundatul nga jox ko ña ko fa wut ña koy donn su dundatul gisatoo ña koy donn nga sarxe ko yéeneel ko itam yool ba kon loolu mooy li aju ci àqi doomu aadama yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ndax xam ngeen ki perte ku mu doon ñu ne ko ki perte de noonu leen ci xam mooy ku doon jaay ba mu yàgg am njaayam yàqu amatul xaalis mu ne déedéet mu ne leen ki perte mooy ki ñëw ëllëg yowmal qiyaama indaale julli yu bari indaale koor gu bari indaale joxe asaka yu bari waaye fekk ba muy ñëw ma nga doon xaste indaale na xaste yu bari yoo xam ne xas na koy doomu aadama saaga yu bari yoo xam ne saaga na koy doomu aadama alali jàmbar yu bari yoo xam ne lekk na ko deret yu bari yoo xam ne tuur na ko lori yaram yu bari yoo xam ne lor na ko doomi aadama nee na su boobaa ñooñee mu doon lor dañuy jël ci ay tuyaabaam moom tooñkat bi li muy bari bari ak jullee koor ak asaka ak yu ko nuru dañuy jël ci ay tuyaabaam di ko fay ñam doon tooñ ñam doon saaga ak xasaka lekk seeni alal diw yaa moom aj ga diw sàngam jëlal kooram diw sàngam jëlal nangam suñ ko defee ba mu jeexal am ñu fay des ne man kat joxaguma te defoon na ma nangam ak nangam ñu ne ko jëlal sa tuya sa ñaawteef yi ñu jox ko da ngaa sàccoon béréb sàngam nañ ko ko jox da ngaa njaaloo woon nañ ko jël jox ko ko def ko ba mu jeexal tàkk yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na deseetul dara ci ay ñaawteef ci ci ay tuyaaba ba noppi fees dell ak i ñaawteef nee na fa summa turiha fi naar su ko defee nee na ñu sànni ko ci biir sawara waliyaasu billah kon kooku mooy ki perte wax dëgg yàlla kon ñetti xaq yooyu di ko al imam ibnul qayim di waxee nee na àq yàlla su tuubee ñu jéggal ko xaq ki nga xam ne maanaam dafa am bakkaar bu mag boo xam ne foofu lay waxe mooy bakkaaru tuur bakkan biñ mu jow rey bakkan muy tuur deret te bakkaar bu rëy la boo xam ne bari na ci jamono ba nit ñi daa mel ni dañ ko woyfal lii jóg guddi di jël seeni ngànnaay ak seeni yëf di lor ay doomu aadama ngir jël seen alal kenn xamul nu mu toll tey ñii jóg di taal ay béréb di rey ay doomu aadama ci loo xam ne kenn xamut lu mu doon kenn xamul nu mu toll dafa mel ne dereti jullit moom tuur ko léegi doon na loo xam ne lu yomb la te lu rëy a rëy la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nga tuur deretam bu fekkoon ne tuubal nga yàlla ba mu jéggal la mboolem bakkaar ya alal yi nga yoreeloon doomu aadama yi dund delloo nga leen ko ba mu des koo xam ne yaa ko reyoon nee na ëllëg day jàpp ci saw loos jiital la ñëw ne sama boroom kii na la wax ci lan la ma reye woon bu ëllëgee nee na foofa la mbiram di yàqoo moom kon loolu moo tax tuur deret dafa doon lu mat a wattandiku kooku la Ibnu Qayyim di wax ne ci tuur deretu nit day àq yi ca tegu ñett la aqi sun borom tabaraka wa taala ndax moo araamal tuur deret kooku mën nga ko jéggal mu jéggalu mu jéggal la aqi ki ci tegu mooy aqi ay bokkam ñooñu mën nañ la di jox ma déye nga jox leen déye su fekkee mën nañoo fayantoo ci yow ñu rey la ba tey waaye nee na lu mën a xew ka nga rey moom deseel nga ko aq joo xam ne kenn mënu koo wàcc kooka ëllëg rek lees ko mën a atte sa diggante ak moom mu door a sotti kon nag mbir mu rëy a ngoog moo xam ne ab jullit war na ko bàyyi xel war na ko daw kum gaar te fekk yaa ko tey yaa ngi ci dansé bu mag a mag boo xam ne sa mucc lu jafe-jafe la tuub gu mette metti ñaan sa borom tawfiq loolu rek moo ko mën a moo ko mën moo la ci mën a musal ndax wax nañ ne ëllëg borom bi tabaraka wa taala ñi yoreeloon nit ñi ay xaq yoo xam ne mënuñu koo fay comme ku tuur bakkan am na sunu borom tabaraka wa taala solution bu mu leen di defal mooy kookee ñu reyoon jamono yim lay topp di wax ne daa bëgg nga fay ko lim ci bëgg moom mooy lu mu fayoo moom ba tàbbi àjjana sunu borom tabaraka wa taala bu yërëmee ki defoon njaaxum googu ngir ak tuubam ak jëf yu rafet yu bari yum dafa lu dul jeex ba sunu borom yërëm ko nee na kookee lay jël yëkkati ay darajaam ci àjjana ba mu doyal ba soxlaatul dara mu ne ko kon ndax mën nga koo jéggal nee na su boobaa mu jéggal ko su ko defee mu door a am aw yiw waaye loolu lépp nag bañ caa dugg moo ko gën a wóor kon lépp lu jëm ci tooñ doomu aadama ci lekk alalam tuur deretam wax ko wax ko wax ju ñaaw loolu lépp ay bàkkaar la yoo xam ne du bàkkaar yi caaxaan yàlla na sunu borom tabaraka wa taala musal ci loolu nasalullah alazim rabbal arsh alkarim أن يوفقنا للتوبة النصوح وأن يجعلنا من التوابين المستغفرين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأقم الصلاة
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم